ku wax tabaski wax occupation anarchique de la voie publique qui marchant tablier marchant ambulant yi ak nit ñi nga xam ne ñooy ñëw marché yi et nag olof Ndiaye dafa ne reer bëccëg lañ koy de waaye guddi lañ koy lekk li tax mooy que d'ailleurs teel a les dispositions un mois avant ci la renforcé renforcer la collecte porte à porte parce que bu faites ni jëloo mbali mi ne ci biir kër yi souvent moins favoriser de dépôt sauvage yi ngay gis au ci grande artère yi muy benn ñaareel bi concessionnaire yi renforcer ses auto dugal ko ci circuit ci walu collectif, ci balayage bi bi euh, le jeudi nga xamné ni euh, ñu le tabaski ci renforcer aussi marché yi quartier yi ci jour presque 3600 tonnes le jeudi le vendredi muy muy jour tabaski bi nit ñi di yi ngi ci terrain bi di nettoyer di mais à 14 heures bi ñu rey xar ba paré tispar auto yi dugg ci quartier yi jël mbali wi population yi apprécier acte bobu nga xamné vraiment UCG def nako muy Dakar ak yenn capitale régionale auto yi dugg ci bi quartier yi wañi mbalit ba minuit ñu amon nañ aussi suñuy agent yu nek à la décharge de bobos parce que ñom ñoo nek ci pont bascule bi pour que auto yi ñëw ñu peser leen jour tabaski bi ñi ngi def 4000 tonnes le lendemain de la tabaski le samedi ñu fait le même dispositif et circuit yep génn le matin ba l'après midi ñu def 3400 tonnes le samedi donc tonnage de 72 heures bi rek ñu presque def presque 11000 tonnes Nous def ci yi mu presque plus de 900 rotations 900 voyages L'eau, def loolu dafay firndeel nekk dispositif bi mettre en place fonctionne. na ci l'eau euh, mobilier urbain parce que nous avons Dakar amulone ay bac à ordure amulone ay caisse ñu def ay bac à ci grande artères jël aussi des ay qui def ko marché yi. polyben qui caisse yi nga xamné ni la marché yi nga xamné ni dañ bi marché renforcer personnel parce que boo mobiliser plus de 1000 agents ci walu volontaire ak ci walu permanent amna na ñoo aussi vraiment demuñu julli ci hein, parce que tamit loolu tax il faut que ñu jëfël technicien de surface yi nga xamné ne ni demuñu julli parce que tabaski dañ koy passer en famille ñom ñu bayyi seeni i jabar bàyyi seen dom, doom seen lepp ak ni tabaski neexee ñu bayyi lepp nekk ci mbal mi di ci liggéey wane na nit ñooñu ay citoyens d'honneur lañu ay modèle lañu mais aussi liñu ko may may ko en janvier 2020 UCG de femmes coordinateur bu de bu tudd Mass le bi mu faut dafa à révolutionner secteur Faire fexe motiver les agents, non seulement faire ba indemniser travailleurs il jël prime la prime de savon 17 000 francs jox 2 2600 agents Madame les 1600 agents ak 950 volontaires Il muy a 2600 agents nga motiver à jox une prime de savon ñu ne détawaay Mass fay génne salaire avant la tabaski boole ci encore avant tabaski donc lolu mu nek benn motivation supplémentaire ci agent yi agent yi xamné nak su fekkee am nga njaatige boo bo xamné ni mi ngi liguey kat yi xalaat augmentation sen pouvoir d'achat ñoom it lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi motax ñu surpassé wu ba def liguey bo xamné tay vraiment mom motax tay sénégalais yi vraiment content ngeen jàpp tay tey fi mu toll euh, nga wara japp né buñ ko défé euh, action yi ñu mel. Euh, dina pérenniser maanaam dina encourager acteurs yi ñu kon ne ñu jot def. parce que likoy gëna encourager rek moy ñu sam sen ak ak sen yelef parce que liggéeykat bu gis yok yok la bëgg damay faral di wax ne liguey ci mbalit kàttan la ak xel bu dal lo am am carton, bu sa xel daloo sa liguey du mëna barkel té il faut être psychologiquement très fort pour que nga nekk technicien de surface nekk ci pionteur bi nekk ci stigmatisation nekk ci pression nekk ci danger ba pare aussi nous sommes les travailleurs les plus exposés tey ku Covid 19 et ak musiba yi mu gàllankoor yëpp ci walu set la donc ñun sommes la première force de défense et de sécurité donc lolo tax ci walu équipement de protection individuelle ñu ngi xeex pour que travailleurs am ay gants am ay masques am ay bottes am ay tenues mais am aussi équipement bi war ci walu gel

foog mu am équipement yi war boy dem guerre nga ay munitions foog nga am armement ñun suñu armement moy suñu équipement de protection individuelle Massiam dafa wax ñew nañu képp ko xamné ni jox nañ ko matériel de protection individuelle solo ko bu len ko lo bu mu yéeg ci camion yi bu ñun aussi à notre niveau d'ailleurs il a fait une vidéo d'information de sensibilisation pour un changement de comportement responsable à tous les niveaux mais nak kër go gis amna maran biran amna ño xamné ni on dit que l'habitude est une seconde nature nga jël matériel jox ko du ko sol ou bien nga jël masque jox ko du ko takk muy liggéeyee loxo neen souvent gaay dañuy yaakaar ne ñiy liggéey ci mbali mi ay walaakaana lañu moom benn genre esprit de misérabilisme ou bien ñi ci nekk dañoo ñàkk or que métier bu noble la donc comme ñun nous sommes des porteurs de germe ñun ñoo war a njëkk faggandiku parce que on dit que fagaru moo gën faju donc su fekkee ne yow sa wàll bopp jëloo li war tax te yow nga aar sa bopp mais dafa mel ni yaa ngi exposé sa famille mais yaa ngi exposé sa bopp tey su président de la République demee ba dégagé un fonds Covid de 1000 milliards ñu ne dee deetawaay mu sa mu mu jaajëfal les forces de défense de sécurité muy police muy gendarmerie muy armée muy santé jël cinq milliards jagleel ko santé mais au détriment des travailleurs notamment ñun dañoo xëy ne waa mais mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ñu ñooy jël mbalit ñi feebar ñi mbalitu déchets euh, médicaux yi ñoo koy jël mbalitu hôpitaux yi ñi nga xam dañ leen a confiné ñi ñooy jël seen i mbalit donc forcément foog ñu am ay primes supplémentaires de risque pour prendre en charge les préoccupations vraiment des techniciens de surface pour def liggéey bi nga xam ne def nañ parce que tey travailleurs yi wane nañ seen patriotisme wane nañ seen bëgg seen réew wane nañ ne dëkk ci dëkk bi dafa dëkk bi moo ko gën ah bu ñu la déggee tamit daanaka yow duñu nga ko commencé nga ko mooy jafe-jafe yu ngeen rencontré pour mener à bien mission bi nga xam ne mooy euh, moom lañ leen mais jafe-jafe bi ñu ci njëkk am euh, Youssoufa mooy euh, ci wàllu gestion des marchés ak gestion des forêts ñëpp xam nañ ne nettoiement compétence la ci collectivités territoriales mairie yi ñoo war a gérer seen i mais mairie yi ñoom ñooy jël taxi yi ci commerçant yi ci marchand tablier yi ci jaaykatu xar yi Soit disant suñu paree dinañu nettoyer mais lépp la ñuy tey damay jël tout le temps benn exemple bu mel ni marché HLM muy l'un des marchés les plus grands de l'Afrique de l'Ouest marché boo xam chaque année dafay yokku mairie dañ fay ñëw encaisser fa ay millions dañ fay organiser ay foire Tay suñu paré jour bi ñuy ñëw di nettoyer jaay ko ñi ñi doon poser xef yi ñi ngi toog ci mbal bi di jaay di défar ñi doon jaay seeni dal ak ñi nga xamné bâche yi lépp fa lañ ko bàyyi donc je pense que l'absence de cadre de concertation entre les communes les travailleurs de l'UCG et aussi euh, administration bi dafa les gestions gestion taf yëngal ça fait ñaar fukki at nous, wax que ñun suñuy agent de l'UCG amuñu droit de ci biir marché yi tey agent nettoiement boo euh, mairie boo gis de nettoyage, agent nettoiement am budget donc nous, ñoo avons normalement lu mel su

on a l'impression que ceux qui votent les lois sont transgressés transgresser les lois parce que naka ngay mun a lu melni stade stade c'est parking le stade le temple du football sénégalais jamono yi passé ñu gis ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique dirigé par Abdou Karim Fofana def fa une opération de nettoyage, bu mag ñu des bi fa ay milliers de personnes clôturé ko ba ñep contents. mais ñu xey tay marché boy demee stade Lamine da ngay joy tay c'est devenu un dépotoir de gravats. C'est devenu un dépotoir d'ordures. Avec sans compter les eaux usées. Il y a des milliers de moutons invendus. Il ministère de l'élevage. Il y a plus de 150 000 moutons invendus. Dakar rek a 60 000 moutons tey soo demee état de l'amitié nous ngi les poneys. yi ñu ngi dajale mais xar yaa des fa ba ne donc je pense que l'humain, daf ñu yombalul suñu liggéey loolu mooy la tâche noire bi nga xam ne moom la ñu am ci wàllu gestion des ordures au lendemain des fêtes malgré que population yi kontaan nañ kenn gisul mbal ci grande artère yi ci mbedd yi ci biir kër yi mais li ñuy li yàq li xaw a yàq suñu liggéey rek mooy la gestion des marchés ak la gestion des forêts. ñu daanal si tënk parce que xam nañ ne le président de la république Macky Sall moo am solution finale solution définitive yow fan nga ko si woo exactement. Je suis le président de la république ci le Sénégal zéro déchet qui ci le changement de comportement responsable à tous les niveaux qui ci wàllu citoyenneté aujourd'hui il nous faut une conscience citoyenne Sénégal doit émerger ci saleté Sénégal doit émerger ci indiscipline notoire caractérisée il nous faut des infrastructures qui répondent aux normes environnementales Blamade maa jël exemple ci Kigali mais nous, nous lañ ñëw tey expertise ak expérience du Sénégal am li tax qui ont ba am ay c'est set Dakar du Sénégal regardez nos capitales régionales souvent elles sont dépourvues de heureusement avec le CG et la Banque mondiale et le ministère nous avons un projet bu mag bu Promogène dans le cadre des centres intégrés de valorisation des déchets Moi, manam fa nga xam ni foofu lañuy def mbaline mi tay ku gis capitale régionale lu melni Touba lu melni les lu euh, Tamba centre yooyu commencé na génn maanaam tey dina tey mbalit mi dinañ ko recycler bañee ko ba nee mbalit wurusu ngalam la c'est de l'or dur donc foog mu am benn recyclage benn euh, transformation buy permettre au moins ñu ñu gérer suñuy mbalit